ndax nu fekk ñoo ngi ci liggéeyal Sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima euh, nii ci liggéeyu Baye Fall yi lañ jógee muy liggéeyu estab ba waaye tey moom euh, tey lañuy tàmbali liggéey bi nga xam ne si moo tàmbalee ci gare Dakar bi fépp fi corniche rek maanaam foo xamante ni daal doon na xatal dëkk bi dañoo am ci ndigal bi jóge ci sëñ Muntaxa loo xamante ni dañ ko war a defar ba nu mu gën a taaroo waaye nag ñoo ngi sant suñu borom bu wër ndax euh, mën naa ne dëkk bi soo xoolee ñëpp rek sa Cheikh waaye moo ñun Baye Fall moom mosuñu ñëw kenn mosuñoo dégg ci ci kenn ak kenn ak ci leen ak leen moo waral ba lépp lu ñu fi sant rek day yomb ci ñun ndax du ñu def lu ëpp waaye du ñu def lu yées lu ñu sant rek ak fi ñu yemale rek fa la ñuy yem wax dëgg yàlla euh, kër yi ñu jaar rek suñu euh, borom place yi ñu jaar yëpp ñoom sax dañuy ñëw fekk sax ñu yombal ñu liggéey bi bari loo xamante ni sax dañ koy daal di dajji dindi ko nga xam boo ñëwee rek yow li ngay def mooy ranger bagage yooyu rek xamal leen ni maanaam sëñ bi moo ñu sant lii te Touba moom defar rek defar defar fi rek moo moo moo fi yoon wi te ñun nag moom wax dëgg yàlla ñun waa kër Cheikh Ibra euh, képp kuy defar dëkk bi rek ñun ñoo ci war a jiitu looloo waral ñu am ndigalul sëñ Mountakha pour tàmbalee liggéey bi fii ci gaz Dakar jëm ba 28 ba mars Ocass fi ñu jaaragul fépp dañ ñu ko yombalal ndax bi ñuy ñëwee seen place yi sax yenn place yu bëree bëri dañuy fekk sax ñoom ñu dajj koo pare waaye lu jëm ci xamaguñ nag ndax euh, Touba moom <laughs> maanaam dëkk la boo xam te Euh, bari nañ ay nit yoo xam te ne képp ku fi bañ rek dañuy yaakaar na nga fay wàllu yaan si waaw so waaye nag fi ñu jaaragul fépp daal ndax dëgg yàlla yombagul na ci ñun dañoo xamul nag ba xam fi ñu jëm buñ fay mujjee waaye fii moom yombagul na ci ñun lool wax dëgg yàlla ndax biñ ñëwee daw nañ compréhension bu baax a baax a baax xam nga doo ñëw ak ni mu mel ak investissement bi ci nekk doo ñëw rek daal di yow kut ko kut rek ak liggéey bi diggante bi ñu ko waxee ak ak léegi yàggut euh, doon na loo xam duréwul waaye nag ñoom ñooñu ku ci nekk jox nañ na durée boo xamante ni maanaam buñ ca tollee dañ ko war a dañ ko faa war a jëlee waaw waaw féppay set bu ko defee dañ fii ndax fii nii buñ fi paree waa Touba te kanam ñoo koy ñoo koy defar ñoo koy defar ba ëllëg nit ku fu nekk fu waaye bëgg jaar jaar lu waaye bëgg a def ko fi waaw am ay table yoo xam man nañ mën na doon ëllëg sax ñu def fi loo xamante ni maanaam mën naa doon organisation waaye comme nii nii moom ak ak curuxu curuxu bi amoon ci dëkk bi waaw waaw ah, nga xam si fu waay neex def nga xam si ñi ñi nga xam ne si maanaam dëkk bi lu leen la ñuy def dëkk bi di wàllum yàq wàllum euh, tilimal ak ñi nga xam si ay agression lañ ñoom ñëpp rek yàlla suñu borom dogal na ni dañ daan raaxaloo ci marché yeeg xeet yooyu looloo waral loolu lañ fi bëgg a jëlee ndax Touba dëkkub organisation la waaw yéen nag ñu leen di sant bu baax a baax li nga xam ne si maanaam moom ngeen fi ñëw pour bëgg lu leer ndax euh, su ma juumut ay murit ngeen comme ñun tey defar rek moo leen tax a jóg kon lii nii ngeen di ko jël di ko di ko jàlle tam da ci am solo ndax ñuy xam fu liggéey bi tool waaye wax dëgg yàlla fi ñu jaaragun daal amaguñ ci benn tolof tolof boo xamante ni taxaw nañ kaas ne lii waruñu ko def wala léeg-léeg ndax ñoo bokk dëkk bi waaw te sëñ Tuubaa rek moo fi ne te ñun Baay Faal ku ne xam na ne xamuñu yàq defar rek lañ xam waaw fi mu toll nii bu ñu sëñ bi santaatoon léegi léegi léegi ñu war koo tali sax ko tali laa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 Serigne Touba bëgg Cheikh Ibra Fall dana ko def garab yi day dañ ci wetu càmmoñ bi jàll leen ci wetu càmmoñ bi jéggi leen ci wetu càmmoñ bi garab yi ci wetu càmmoñ bi day dañ lépp lu Serigne Touba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 moo tax ndigal bu jugee ci kër sëñ Bamba jëm ci kër Cheikh Rafal faaw ñu jëfe ko te sëñ am ni muudu benn mi nga xamante ne mooy sëtub Cheikh Rafal ñu jox ko ndigal li bàyyam sëñ muudu mbenn fa daa liggéey lu rëy ci yoonu murid ndax daa doon koo xamante ni mooy interlocuteur u Sénégal moom ndax lii problème mooy kere bi nga xamante ni maam Cheikh Rafal moo ko wax ci làmmiñam moo ne dama doon di ñaan ba àgg ci pays sans borom yi dem àgg fi diggante àdduna ak alaxira yem nee na ma genn leer nee na ma gis genn leer gis jënd jëmb joo xamante ni ma nga benn jàllaabi bu weex drapeau l'islam jaay salamar Cheikh Fall nee na ma romb di jàll yonentu yàlla ya xaw ma ne ma Ibrahima ma ne ko Fall mu ne ma xanaa gisoo kii ma ne ko kii noonu naa moo bind adduna ak alaxira mu ne ko ki leer la gu la sama jox daa war a feeñ sa njaboot maam Cheikh Fall nee na kër mujj ma àgg sama borom ndax woom la na jafe-jafe nag moom du ci mën a am ndax dëkk bi daa doon dëkkub jàmbur kër boo fi ñëwee borom kër ga na bëgg rek noonu ngay doxee te ñëpp maasee na ni dëkk bi dëkkub Cheikh Bamba ndax dëkk bii du ñu naan Touba ñi ko bëggoon daa bari lool te moom kër la kër nag borom moo sañ a dogal moo sañu xol la ko fa neex mu di ko def muy ndigal lii gis nga tey ji bu sëñ bi noonu mboolem ni Touba na gi ñàkku sëñ Bamba jabaru Cheikh Rafal gi dana ko raafal ndax keroog bi ni lotti sa Touba sëñ Fallou daa woo sëñ Cheikh Fall Baye Góor ni ko damaa bëggoon nga génneel ma mbedd yi sëñ Cheikh Fall Baye Góor di bakk liggéey bi diiru ay weer yu yàgg la ko sëñ bi yoxe woon dele kon képp kun fa fekk rek nañu jàpp ne da ngaa dëgër bopp te woye woo ndigalu sëriñ bi ndax leeree nag ba pare ñu tàmbali marché Ocass ge te lii mbir mi mooy nee naa li sëñ Mountakha moo ëpp yërmande ci nit ñi xoolal toll ni marché Ocass ñaata fan muy lakk ña fay lakk le bari lool te le bu mbedd yi leeroon bu fukk waree lakk benn du lakk mbedd yi ni mu kii te boo waxee ñuy ñaawal ne néew le moo ma tax a raw ñu baree bari da ngay ñu le néew le li ma yur ay bagage yi moo tax ma raw waaye dëkk bi damaa bëgg ñu xam ne gi ñàkku sëñ Bamba dana mel ni Paris Touba gi dana mel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 la ilaha Ce programme initié par euh, le Khalif général rentre dans le programme de la protection de l'environnement. Il faut d'abord que Touba soit une ville où l'environnement est bien protégé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'installations qui, qui sortent des règles de gestion d'une bonne ville. Touba est actuellement une ville moderne, une ville qui aspire à se ranger au rang des villes les plus soutenables. C'est dans cet ordre que Serigne Mountakha a lancé ce travail. Mais Baye Fall nag ñoom ils sont là pour ça. Ils sont aptes et disposés à travailler sur tout Donc voilà, c'est une journée d'importance capitale. Et ça, c'est l'héritage de Cheikh La volonté, l'igueille, Tidjamou Yalla Ils n'ont pas d'obstacle pour ce qui est de parfaire un travail. Quel que soit le travail, c'est très dur. Ils n'ont pas les outils pour attaquer ce travail. Ah, mais tout cela, donc, ça pose aussi une autre, un point d'interrogation aux autorités gouvernementales qui doivent appuyer ces genres d'activités parce qu'il leur revenait de mener la salubrité dans la ville. Donc si les Baïfal entretiennent ce travail-là, ils doivent venir pour le secourir au niveau des moyens de travail. Ça existe. Baye Fall li ko li ko wutalee ab yéefar moo di ndigal waaw ndax koo xam ne du julli du woor la nga xam ne moom la remplacer loola mooy ndigal moo tax maanaam dañ ciy bëgg lool nag ci jox bi ñu ko sëriñ bi jox di bëgg mu mel ni mu ko bëggee moom waaw di ci sant bu baax a baax nag ñu nag ñu bàyyi ko ci biir kër bu kër yi moom siy fal ànd ak ndongo yi rek tënku ci ndigal li nga xam ne sëñ Muntaxa da koo jox sëñ di Modou Mbène ak képp ko dul Baay Faal rek mu jox ñu ndigal li ngir ñu lépp loo xam ne jox ñu ko ndigal ci luy far jëre ñu jëlee ko lépp lu ngeen gis mu taxaw fi mu euh, station rek maanaam dañoo dañoo ndigal li bàyyi ko ci sëriñ bi ndax dañoo am gasoil boo ne moo tax loolu rek mooy ndigal li rek la ñuy déglu moom mooy jiitu jox ñu ndigal waaw maanaam bu dañuy fanaan dañuy fanaan waaw kon sëñ bi rek la ñuy déglu waaw ilaaha illallah